asalaamaaleykum uh, mbokku téléspectateur Prestige TV gis nga ni ma leen ko waxee rek uh, saa su nekk ci seen uh, émission Euh, pañe prestige ak jóge nañ ci monsieur le maire Lamine Diallo dañuy daal di ñëw fii nag ci Aly Nguer moom euh, yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté ci biir Thiès ñëpp xam nañ ko ci wàllum politique waaye ñëpp xam nañ ko ci wàllum élevage bi nga xamante ni ci moom lay yëngu macha allah mu doon lu rafet dañ koy daal di bàyyi mu daal di nuyoo euh, daal di koy nag présenté suñu pañe comme niñ koy defee saa su nekk Aly Nguer Aly ñu ngi lay nuyoo bu baax a baax di la dalal ci émission prestige panier ak mi ngi noonu paye pañe baa ngi émission bi nak xamna ni dara umpul ci te yow kula xam-xam ni do gan prestige kula xam-xam ni tamit euh, nek nga nit ko xamanteni da nga serviable disponible ba dee macha allah loolu moom ñu daal am fitu ñew fekk la ni rek nga daal tok sa buntu kër Ali xamna ni da ngay daal dak koor dafa melni koor gi da la japp ñi ngi lay nuyu. waaw ñi ngi len di fay jojo di wax alaykum wa rahmatullah Eh, ngeen may ma rek ma door samay nuyoo ci seen kilifa di suñu kilifa di le PDG Pape Doumbouya nekk président mouvement Thiès ca kanam di nuyu alaaji muniru njegeen nga xamante ni moo fi toogal tijaniya bi di nuyu serigne saliw touré di balu julit ñepp ak te di len bal ak vraiment content na ci peñe bi nga xamanteni tay man ngeen set ci euh muy 3e rubrique bi ngeen joggé ci cheikh ndoy dem ci monsieur le maire lamine diallo ñew ci man dama len di dalal ak jamm koor moom ragaluñ ko ndax xam nga koo xam ne ci ci terrain bi ngay nekk dootal sax lekk maanaam koor dalay lay gënal ñun moom koor dafa ñoo gëna ay Ali ni nga toogee nii ci kër gi ah toog euh, ci sa bunt lan laa fi gis ni Nguer élevage. waaw xam nga fii moom mooy bergerie Nguer élevage mu nekk euh, loo xam dañoo am passion ci yar loolu la quoi dañoo am passion ci yar maanaam jur gi. loolu la loolu tax ñu def tuddee bergerie bi ngir élevage eh, nga gis ni ci Thiès ca kanam bi laa fi gis eh, eh, Pape Doumbouya ak yow waaw xam nga nit ku nekk takkandeeru takkandeeram dafa war di feeñ mooy ombram Pape Doumbouya ñun ñooy ombram ci Thiès parce que li ñu sekk la lu ñu sekk la lu jiitu politique la lu jiitu mouvement Thiès ca kanam la mais ku la nekkal ci naaj bi da koy nekkal ci kër gi tey su dee am na lu ñu mën ba nekk ay chef d' entreprise bay def ay ngeer élevage loxoom da cee dugg kon kooku danga nga koy delloo njukkal nga gis fole nga gis ma def le président Idriss Seck def horizon 2035 muy mburu ak soow mi waaw xam nga damay ñaan ñun waa mburu ak soow ñu ànd ak PDG ci zone nord jiital ko fa mu nekk maire man loolooy sama souhait. Aly Nguer zone zone nord saturé na zone nord candidat yi bëri nañ. waaw xam nga jullit bu nekk wala jàmm bu nekk su xëyee. day tàllal loxo borom bi ñaan ko soxlaam yàlla mooy maye nañu sabablu man sama yéene loolu la moo tax man na ko xam nga ma zone nord su ma fa dëkkoon damay dem nekk ci kanam ñu campagne comme que zone est la dëkk li ma mën mooy soutien ku ma am man la jàppaleel le PDG Pape Doumbia nag mu ñëw jàpp ci li nga xam mooy mburoog soow bi pour ñu jiital ko. su ngeen ko jiitalee de jiital njiit. waaw xam nga suñ ko jiitalee jiital njiit dama am ñu maanaam yow réew mi nga bokk lu tax ngay jàppale Pape Doumbia bàyyi say frère de parti. ma ne leen dama doon liggéey ci maire yi ñëpp xam ma engagement politique tax ñu dàq ma amatuma salaire amatuma dara mu jël ma forger ma former ma encadrer ma jàppale ma waaw kooku da nga ko tëkkale keneen kon moom laa jàppale que mu neex que mu naqari sama candidat zone nord Pape Doumbouya la tudd ku mu neex nga jàpp ma ci ku mu naqari nga bàyyi ma ci parce que ni mu ma defal la soo xamul nit ki noo koy def lam la def moo tax lam ma defal moo tax ma ànd ak moom moo tax bi ma ko defee fii jël nag sama président muy Idriss Seck nga xamante ni moom dafa woote horizon cinq pour ñu dem ci li nga xamante ne nii mooy euh, lu garaaw ndax Idriss Seck borom xam-xam la te ku gis suñu dugg ba ñu duggee ci mbuur ak soow mi xam nga ni dëkk bi am na lu ci changé mais Aly euh, yow ku xam-xam laak euh, président Idrissa Seck en tout cas man bi ma la xamee ba tey président Idrissa Seck laa la xamee euh, mosoo changé mosoo pousse ci parti bi à chaque fois yaa ngi ci nekk yenn saay sax dama lay dégg ci groupe bi mu jaral la lu nekk euh, récemment fan yii nag gis nañu ñoo xamante ni ñi ngi génn euh, ci parti bi mais yow lépp rek ak président Idrissa Seck chaque fois yaa ngi nekk ci ginnaawam lan moo waral loolu. waaw li ko waral mooy man ak ñoom dañoo bokk lu ñu dugal ci politique. xam nga nit dafa am ñetti façon militantisme yu am ñii dañuy ñëw pour promouvoir seen bopp ñii gëm idéologie parti ñii gëm xaalis mooy ñi comme genre ma tooñ ko Ibou Diouf ak Bass Seye yi nga xamante ne ñoom politique guñu mais dañuy ut seen poche luñ ciy def euh, man bokkuma ci ñooñu man je ne suis pas un réewmis xam nga réewmis mooy da ngay dem jël carte de membre nga liñ texte parti bi nga ne Idrissa laa àndal lii mooy doctrine parti bi man je suis un séquiste Idrissa su Idrissa bàyyi woon politique 5 heures. 6 heures génn naa dem ci mouvement Thiès sa kanam parce que Idrissa ma bàyyi ci politique kon man ki ma ñor Idrissa Seck la tant que mi ngi nekk ci politique moom laay àndal lu ma ci fekk ma jël parce que soo xoolee tey laa lay wax loo xamante ni ñu bari xamuñu ko jëlal historique bu parti politique bu tudd parti réew mi Idrissa Seck dong moo fi def 7 ans ci prison 7 mois ci prison man ma def 6 mois nit xamu ko bi ma génnee. def nga prison 6 mois. sama waa parti kenn seet si wu ma. waaw xam nga boobu mu ngi tombé woon ak M23 ñu bokkoon ci xale yi jiite woon M23 parce que yàlla dafa ñu teel a may tur ci Thiès teel ñoo may nit ñi wóoluñu di ñu jiital manko maa ko jiite woon wattu maa ko jiite yëpp yu am ci kuréelu ndaw ñi ci Thiès su ma fa nekk ak su ma fa nekkul opposition bi en ñooy ànd jiital ma léegi nag ñu amoon taxawaay bu ñu ci am pour Ablaye Wade bañ a am troisième mandat looloo waraloon ñu jàpp quatre jeunes M23 yi ma ciy rendre hommage sama frère yi ma àndaloon muy Alioune Arma Diouf Badou Faye ak Abdou Khadir ñu ñoo tëddandoo six mois de prison pour Abdoulaye Wade dem looloo indi changement bi nga xamante ne moo waral Macky Sall nekk fii bay exercer deuxième mandat loolu laa lay wax man la parti bi man coono gi ma ciy daj du pour ma Samba pour ma Demba pour Idrissa mën a corriger le profil du pays comme li mu def tey bi mu demee ba sentir que ni dafa war a dugg ci nguur bi mu demee ba sentir que ni dafa war a fàtte boppam ngir askan wi dugg ci nguur man dama fàtte lépp lu ma jàppoon fàtte lépp lu ma daan wax waa APR dem bootu seen ginnaaw fa Idrissa joxoñ laa ñu wax Idrissa chance boobu la am mooy dafa am ay responsable ak ay militants yoo xamante ni moom la ñuy déglu mais est-ce que xalaatoo ni aussi lu mu dugg euh, euh, ci euh, APR xalaatoo ne am na ay militants yu bëri yoo xamante ni dañ koo mere ci loolu ba mu jaral leen aussi ñuy bàyyi mburoog sow bi. duggul ci APR dafa dugg ci li nga xamante ne mooy nguur suñu parti réew mi la tudd Idrissa mooy président parti bu réew mi dafa am woykatu àdduna buy way Serigne Babacar mu ne ko ki ñu booleel suñ ko xeebee def nga ay. ñun Idrissa lañu boo la ñu wóolu ki nga wóolu ki mu la booleel soo ko xeebee rek def nga ay ñun dañ ko woolu ci politique moo jël engagement dugg ci nguur ñun ñu nekk ci réew mi yëpp suñu suwee moo doon mu nekk président de la république moom moo xam yoon ba muy jaar borom biir buy daw soo koy gunge su dawul bul daw ndax la muy yëg moo ko xam ñun Idrissa bëgg a nekk moo bëgg a toog ca palais ba du ñun su génnoon suba ma génnaat suba man. man duma ma réew mi sekkis laa lu Idrissa joxoñ laa gëm lu mu wax fa laa jëm ci orientation politique jébbaluwu ci moo ci moom du sama sëriñ kële ma desee ne fële Seydi Aboubacar Si laa yaakaar ci wàllu addu ginnaaw ndey ak baay ginnaaw ba yàlla wéyee yonent bi wéy nday ak bàyyi wéy kee laa yaakaar muy Serigne Babacar ci politique nag Idrissa sek laa wóolu moom laa jox fu mu ma joxeñ fa laa jëm. koor gi jàpp na la de yaa ngi yëngu de. non man nii laa mës a mel ku ma xam ni Aly Nguer nii la mës a mel koor ak sudul koor yëpp suy wax ci Idrissa du ànd ak ban message ngay lancé ci koor gi. waaw xam nga koor moom weer la boo xamante ne weeru yërmande la weer la boo xam dañoo war a ñoŋal suñu digganteeg suñu boroom weer la boo xamante ne dañoo war a dimbali ñu ñu tane mais dañoo war a balonte àq li may ñaan ñëpp mooy ñu xam ni Sénégal suñu Sénégal la ñoo ko moom su baaxee ñun la baaxul su bonee ñun la bonal ñu fexe mën nañu bañ a bokk fi ñu jëm mais ku ci nekk respecte su moroom ci la mu nekk. ñu bàyyi di sos bàyyi di wax lu dul dëgg te gëm suñu bopp te xam ne nit koo mënti àndal mënu laa jox lu la yàlla joxul sa wërsëg su nekkee ci moom soo fenee ba am ko soo waxoon dëgg am ko après yaay di koo ci mënti àndal muy koo mën mënti jege ci kilifa yi soo koy wax bul xalaat la ca poosam mais xalaatal sa bàmmeel loolu laay wax jeunes yi te di leen wax nañu gëm suñu bopp mais nañ leen dem liggéey nañu gëm nañu uti ci lu ñu jàpp parce que ndaw day jàpp ci dara politique du métier. ku ko ci def do am retraite jërëjëf Ali Nguer euh, ñu ngi lay remercier ci leeral yi waxtaan bi am na solo waaye bala may tëj émission bi nag dama bëgg euh, nga taril ma benn saar rek ñaanal Sénégal le prestige ak man mii toog jooja xanaa da ngaa bëgg a wane ni dëkkub ceddo nga ñëw <laughs> xam nga man moom mun naa laa rusoo ndax fii nga ñëw dëkkub ceddo la mais fi dara la woon tamit uh-huh. euh, pour wax rek ni mooy loolu xam nga nak man dama dul def lu ma mënul xanaa ma jël ci saaru yomb yi rek jéem koo tari papa ak Malick ñu bu ma def nii ma ma wax la ma jox la benn saar. <laughs> waaw xanaa ñu tari xulluwa rek xulluwa allahu ahad allahu samad lam yalit walam yulat walam yaqul lahu kufuwan ahad jërëjëf euh, Aly Nguer kontaan nañu bu baax a baax euh, euh, gis nañu Sar bi nga tari mu doon Sar bu am solo macha allah kon ñu ngi lay félicité xam naa wan nga ma ne tey mu politique rek waaye wan nga ma ne tamit mu élevage kese merci beaucoup prestige panier prestige ak kontaan na ci yow sa panier baa ngi nii nag moom lañ day indil présenté la ko j'espère que nag panier bi neex na la. waaw xam nga panier bi moom li tax muy neex. ma fas yéene koo jël dem jox ko ki nga xamante ni munuma koo fay munuma koo ñaanal ba mu dal ko li ma mën rek mooy jaamu ko topp ay soxla muy sama yaay booy moo tax fi mu ñëwee neex xam nga peñe bii nga jël ko macha allah dem yóbbul ko sa wéy jur bett ko ci troisième jour koor gi ñaan lay doon rek man mooy sama àjjana mooy sama gàllaaj kon damay santaat yàlla eh, di baalu àq ñi ñuy seetaan su ma fi waxee lu ma warta wax parce que ñu xam ne nit ku doyee di laa rek koo xamante ne xamul dara mënul dara waaye tolluwaay su baaxee ñu xam ne ci borom bi la euh, jooja fi may tëjee nag mooy di gërëm papa ak ki nga xamante ni mooy Malick di leen wax ni Lac de Guiers rek lañ di wër jërëjëf Alinga kontaan nañu ci yow bu baax a baax mi ngi noonu pañe baa ngi nii waaye balaa may tëj émission bi nag damay remercier bu baax waa équipe production ñi nga xamante ni ñoo may gunge ci euh, émission bi euh, Malick Laye Diouf merci beaucoup maa ngi lay remercier bu baax Papa saw yow tamit euh, kenn yow ak équipe production bi yëpp Modou Aïcha madame Diakhaté ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak di leen remercier bu baax a baax sant ak gërëm di leen jox rendez-vous ba beneen yoon ak beneen pañe prestige prestige ak ñu xool keneen ku ñuy yóbbul suñu pañe fii ci prestige TV lay doon jërëjëf.